damay waxtaan ak ñi ma yàlla boole ndokk ba nga waxee sama bëgg-bëgg xam nga boo ma wax boo waxoon fii lu dul nekk seen jëwriñ rek naa la mere Sëriñ Tuubaa mooy koo xam ne la mu waxoon ne liggéeyal naa yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fayee ma adduna fayee ma àllaaxira daana wax ne ku yàlla bind boo xaree xol ba fekk fekk ma ci man Ahmadul Xadim sa àjjana liggéeyal naa la ko mais soo ko ñàkkee yaa ko xañ sa bopp léegi nag li war a fayee Sëriñ Tuubaa nag mooy liggéeyal ko liggéey bii nga xam nag dañ koo sémb te sémb ko te ay ay ay kilifa yu jege sëriñ tubaa sémb ko defe naa ne seex bu ngeen dem këram day rus ba pare soog caa wax. ma bëgg a wax man li may bëgg a wax du bari képp koo xam ne ci man la aju te nekk tubaa ci laa koy tàmbalee soo amee sa ab dépasse weer te génne woo 1000 francs yi nga xam ne moo jëm ci liggéey bi yaa wax ne maay sab sëriñ waaye jàpp naa ne man doonatuma ko Sénégal géppit nag ak bitim réew maa ngi leen di ñaan mboolem ku nekk bitim réew waxuma ko teg bi de du ko sas aw ab teg lam man ci dooleem bu tegee ba noppi na ko ci boole wasalaamaaleykum wa rahmatullah